ma wax la màggal gi yàlla màggal ne ku ko màggal danañ la màggal li Bàmba woote ne buñ ko wuute te digle ceeti bernde di màggal 18 safar mi ku ne ci réew mi na xam ne moom mi rekk di magal Italie xam na France xam na Allemagne xam na li moo di magal waroon na kon tey ñuy gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane magal murid yi jugleen waaji safar yaan ci bernde ak ñaanu jekku magal murid yi jugleen waa ji safar yeen ci bernde ak ñaanu jekku magal bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri haasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahi irrahmani irrahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri haasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahi irrahmani irahim qul a'uuzu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min sharri waswaasi alxannaasi allazi yuwaswisu fi suduuri nnaasi min aljinnati wannaasi bismillahi irrahmani irahim qul a'uuzu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min sharri alwaswaasi alxannaasi allazi yuwaswisu fi suduuri nnaasi min aljinnati wannaasi bismillahi irrahmani irahim sadaqa allahu mawlaana alazim wa balaga rasuluhu alkarim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa xaaliquna wa raziquna wa mawlaana min alchaahidin allahuma rabbana taqabal minna xatma alquran wa tajawas anna ma kaana fi tilawatihi min asahwi wa nisyan faktubhu minna ala altamaami walkamaali walmuhasibi min kulli ilhaan faxfir lana ya rabbana ya sayidana la tuwaaxisna ya mawlaana warzuqna fadla man qara'ahu mu'addiyan haqqahu ma al-a'daa'i wal qalbi wal lisaan wa hab lana bihi al-khayra wa as-sa'aadata wal bishaarata wal amaan wa laa taqdim lana bis-sarri wa as-saqaawati wa ad-dalaalati wa at-tughyaan wa nabbihna qabla al-manaayaa 'annaa min al-ghaflati wal kasalaan wa tub 'alaynaa innaka anta at-tawwaabu ar-rahiim allahumma zayyinna bi ziinatil qur'aan wa akrimna bi karamati alquran wa albisna bi qilaati alquran wa aafina min kulli balaa'i dunya wa azaabi alaaxirati bi hurmati alquran warham jamiica ummati sayyidina muhammadin bi haqqi alquran allahuma ijcal alqurana lana fi dunya qarinan wa fi alqabri muunisan wa allahuma ahdina bi hidaayati alquran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 اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بهناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا جنة بصفاة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين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 وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالحين من الخيرات يا الله ودمرا كل اهداء تدر بنا قبل نزولنا يا الله يا الله طيب لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا رشد وتوفيق يا الله يسر لهم به الذي تعسر فكل ما يسره تيسر waat ci alxuraan ni doon tas sa yaakaar yi bàyyi sëñ si lay wax de dama wax laa ko xam de yow doo tas mukk yaakaari Cheikh Béthio te yitteem na nga koo xam Cheikh Béthio yitteem mooy sëñ Saaliwu ak mbooloo mii mu ko booleel maa xam fu mu tegalum taalibeem maa xam nu mu ko daan mayee soxna maa xam nu mu ko daan joxe kër maa xam nu mu ko daan dimbalee bu tàmbalee tabax te si maam doyul lu mat million yu nit kenn ku ne nga bëgg a jox leen teg moom mu xam yaay kan nga xam yaay kan ci moom laa ko mas a gisee ku ko mas a nuyu di gone am positif yor kawar gu ñuul dina jëflante ak yow ba nga defa ni da ngaa wecci doomam wala rakkam li may wax nag Babacar Mbaye mii doy na ci seere moo ma ko gën a xam moom ma jëkk ci moom jige wan na ko wóolu wan na ko doon na ko liggéeyloo waaye moo wax ni dalaa gërëm moo ne sëñ Saaliw sama doom jii mooy sama taaw te bu ma sañal li nga def ci man nga def ko ci moom sëñ bi di ko fexeel ma gërëm ko rek kon dina ma yomb lool Ibrahima maa ngi lay nuyu ko ate yaa des gor yaa rafet noo ànd ak Cheikh bëgg Sénégal dégg ko ndax man comme kenn du ma weddi juróom fukki at laa dox ci yoon wi ànd ak mu doomi tafaal xam lu yoonu murit waaye sa jikko sa xol sa bëgg nit sa woyof mën naa tax nga ànd ak àddina bépp Tuubaa gépp la bëgg te nee na yaru koo xam ne sëñ daa yaru sëñ Saaliw daa dégg ndigal te kat ku déggul ndigal ci mbugal ngay ne ndigal ku ko dégg mucc nga ci mbugal ku déggul ndigal yaa ngi ci mbugal mi yaa yaa jubóog sëñ Muntaxa yaa jubóog sëriñ Seex yow la sant lu métti nga ni Ibrahima Kouaté sama jaww ji kaay mu ñëw nga ko sama bakkan laa ci teg andi nga ko te ñàkkoo sa bakkan sëñ bi ni ma ah man ko andi ko fii ci yow te ñàkkul bakkanam waaye nag jëli na ci lu mun ma sikkuwul maa wax sëñ bi tontu sikkiwul sëñ Muntaxa mii baa nga ni nit ñi xamulu ko sëñ Basiiroo ko jur kuy bàyyam gërëm na ko Alaaji Baara gërëm na ko Cheikh Sidi Maxtaar gërëm na ko ma xëy di sëñ Basiiru di sëñ Touba moom Njaareem moom Poroxaan moom Touba te sëñ Touba la fi loolu nga ko ma sa moom Touba moom Njaareem moom moom Poroxaan ku ma sa moom Porokhane moomoo Touba moomoo Njaareem sëñ Mountakha tey moo moom Touba moo moom Njaareem moo moom Porokhane feele yaay sëñ Bamba ne feele liggéeyee fii la añee sa baay defal la lii te xamal na ni day dem kat waaye ndaa bëgg nga dëgër kën ndax kën gi ku ko doon ñëpp xam na ni yaa doon Cheikh Béthio ku doon Cheikh Béthio fii ngay ne ndax fii la newoon kon ku mag gi dig nga déewa ni ma maa ngi koy romb di dem sama xel a ji de sama rakk yeeg taalibe sama baay yi xam ne fii la Seex Béthio doon yeew ñetti nag maa ngi ñaan nga gudd fan maa ngi ñaan nga wér maa ngi ñaan sëriñ Seex lim lay jox yàlla nga jël lépp def sa poos ànd ak sa mbooloo yaa gënub sëriñ ci réew mi nag Seex mii nee naa ko ni nga doon ne sëñ Tuubaa bokkut ak toog ci lalam yetti liif la doon ci sëñ Bamba alluwa jàngat jàngale àll ba béy ak béylu allah kubar julli ku ko doon yaa doon sëñ Bamba alluwa àll ba allah kubar mooy jànju ba la ñëwoon rek sàllaaw de li nga bëgg ni ko am de ku sa xel da lu am dox Ibrahima nan dem rek nit bu taxawee di jëf tëdd moom mi doon jëf bu tëddee jëf may jóg taxaw te yow bokk nga ci jëf Seex Béthio yàgg sa rakk yi ak sa taalibe bàyyi ak jëwriñ yi nga xam ni ñooy doomi xoli Seex Béthio ba xam nga ni nit ku ne ñaari doom la am doomi deret ak doomi xol doomi deret bu ndeyam baaxee doomi deret la doomi xol la doomi xol mooy ki jeex tàkk ci sëñ bi ba sëñ bi waññi ko jeex ci moom nga ànd ak ñëpp doo bondu kenn doo mere kenn doo wax lu ñaaw te lu nit wax bu ñaawee nga tàngam lu ko ne ko bul wax foofu moom doon wax fii ba suba du jeex dama lay seere ndax li ma lay seere daa koo ñemee doomi soxna yaa ngi may dégg sëriñ saa ngi may dégg murit yaa ngi may dégg te xam na li ma wax dëgg la dundal téeméeri at te damay ñaan sarak yëpp ne ca ginnaaw bu kenn dem ne fi rek ànd ak ñoom yëkkati sa ndami bàyyi ba ñëpp xam ni yaay Cheikh Béthio asalaamaaleykum wa rahmatullah yóbbu ñam yi ci hôpital yi ak prison yi ci barke magal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci magal képp ku magal bis bi di magal magal gu dëggal dees na la magal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful waru ki woote màggal bamba danoo moom am nu ku dul moom nañ toppi digleem te fonk màggal bamba danoo moom am nu ku moom nañ topp digleem ta fonk màggal fépp fu mbooloo dajee di booloo nañ jéema booloo waxtaani màggal